ñi ngi leen di nuyu te di leen siyaarat di leen ndokkeel di leen balu àq di balu àq ñëpp di am mbégte bu baax a baax di ñëwati ak yéen ci seen émission bu am solo bi nga xam ne seen seen CMT bu Grande Mosquée de Touba daf leen koy amal ci weer wu nekk ñaari yoon muy émission gàggantiku émission gàggantiku nag euh, di émission boo xam ne dañ koo jagleel ay laaj yoo xam ne dafay yitteel nit ki ci wàllu diineem ak ci wàllu lu yéwénal ak dundam ñu ciy dalal ay boroomi xam-xam yoo xam ne dañ leen di jébbal laaj yi nga xam ne am nañ ko fi ngir ñu fas ñu ñu cee indil ay leeral ngir mu jariñ ñu émission boobu nag mu ngi am ci weer wu nekk incha allah le 9 ak le 23 bu nekk. tey jii nag euh, ñu ciy dalal euh, sëriñ Mbak sëriñ Cheikhouna Abdoul Wadoud kenn ku nekk xam ko te miin ko lool ci seen bii di GMT TV ci jataay yu am solo yi nga xam ne mi ngi ko ciy amal tey jii nag laaj yi nga xam ne moom lañ am moom lañ ko fas yéenee jébbal ngir mu indil ñu ci ay leeral ak ay tont kon sëriñ Cheikhouna ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Abdou Lahad maa ngi lay delloo nuyoo di nuyu itam mbokk yi nuyu topp yëpp ak fu ñu mën di nekk di ñaan yàlla defal nu jàpp dal ba nu wax fi lu jub te am njariñ te lu am njariñ itam mu defal nu jàpp dal ba nu koo jariñoo sëñ Abdou Lahad jërëjëf sëriñ Cheikhouna kon ñu jublu ci laaj yi laaj bi nga xam ne moo njëkk mbokk mi dafay laaj ne ndax fen wuy defar moo gën dëgg guy yàq waaw loolu de xam naa jar na gonet ak teqantal euh, fen wuy defar ak dëgg gu yàq li nga ci defar gi kan lay defaral day li yàq tam kan la yàqal bu fekkee daal luy yàqal ñëpp la walla lee di luy defaral ñëpp bu de ñëpp la li muy yàq da ko yàqal ñëpp daa li muy defar da ko defaral ñëpp foofu la laaj bi mën a dugge waaye am na loolu nit mën naa yàqal kenn rek dëgg gu yàqal kenn rek ak fen wi defaral kenn rek loolu moom duñ leen duñ leen laaj ñoom ñaar mm-hmm. euh, boobaa kon dëgg ga rek lañu ñu war a wax bu yàqal nit ki itam dëgg rek la war wax ndax loolu lañ naan da mhm. ngay wax dëgg doon te day dal ci sa kaw mhm. mooy da lay jural sax lor waaye nag bu dee ci mbooloo mi lay dal bu dee dëgg góog buñ ko waxoon day yàqal mbooloo mi lu mel na ci bu xeex amoon loolu bu dul xeex itam loo xam ne buñ ko waxee ñii bëgg a yàqal mboolum dañ ci mën a sukkandiku ba yàqal leen loolu dañ koy bañ a wax bu dee bu ñu waxee safaan ba te amut mooy tax ñu aar mbooloo mi dañuy wax safaan ba moo tax xeex ñu daan ci maye lu mel noonu di euh, naxe lañu ñu tuddee naxe ndax naxe itam mooy wax dul dëgg rek <laughs> wala wane dul dëgg kon daal mi ngi aju ci mu dellu ci mbooloo mi waaye bu fekkee ci kenn rek la dellu moom booba dëgg rek la ñu war a wax bu fekkee kenn da ci loru itam euh, loola du tey ñu wax dëgg euh, lu dul dëgg te ku cee jariñu itam du tax ñu koy wax waaye bu dee ci mbooloo mi lay dellu nag euh, bu ñu waxee lu dul dëgg te muy jariñu mbooloo boobaa mën nañoo wax lu dul dëgg ngir mu jariñ mbooloo ma mën nañoo bañ a wax dëgg ga ngir dëgg ga day lor mbooloo mi hmm. jërëjëf euh, sëriñ Cheikhouna euh, mbokk mi dafay bëgg ku ko firil aaya bi nga xam ne mooy wa in kullun lama jamiun ladaynaa muxdaruun wa in kullun lama jamiun ladaynaa muxdaruun loolu yàlla ëllëg lay wax àllaaxira lay wax te wane na àllaaxira ñëppay teew fi moom ñëpp la ñuy teewal fa yàlla bu ko defee nag teew ga la cay topp nag mooy àtte tege ku ne ñu xamal ko lam jëfoon fay ko itam lam jëfoon kon foofu la foofu la aju àllaaxira lay wax ci ëllëg ne ñëpp dañuy teew fa kanamam bu ko defee ku ne ñu xamal ko li mu doon def ci àddina fay ko itam li mu doon def ci ci àddina hmm. eh, jërëjëf mbokk mi moom dafay laaj lan mooy tàqale diggante njabar ak lasraar loolu de xam naa nag ñi ci yëngu dëgg-dëgg ñoo ko war a mën a xam hmm. ndax lépp moom ndax lasraar lu muy firi mbóot ay bóot lay firi hmm. njabar foog naa ay bóot la war a doon doonul lu lu fees hmm. kon day mel na nuroo nañ ci ñàkk fees xëy li muy nuru xëy na ñi ñi ne dañuy lasraar ñoom duñ wax ne dañuy jabar dañuy wax ne ci alquran la sukkandiku ak ñaan dañuy ñaan daal dañuy ñaan lañuy wax ñaane alquran wala ñaane leneen lu dul alquran te doon lu baax loolu la wax jabar nag daa mel ne moom kuy lëkkaloo ki jabarum day lëkk lëkkaloo ak i jinne te mel na ne itam jinne yi dañ koy def looloo xam ne du doon lu baax boobaa kon danañ wute ci noonu njabar kon de kuy lëkkaloo ki jinne te jinne di ko def loolu baaxut bu ko defee ñëw ñu koy jàppale ci wàll yañ ko mën a jàppale kii eh, lasra ci niñ koy waxee ñoom mooy dañuy ñaan dañuy ñaan eh, ci alquran ak ci leneen lu dul alquran waaye daal lu baax lay doon duñ duñ jumbandikoo jinne ci niñ koy waxe ñoom hmm. jërëjëf euh, mbokk mi day laaj lan mooy ate bor ci biir julli bori yi bor day ku ko def ci julli mën naa bañ yàq julli ga mooy mën naa fexe ba euh, setal setal boppam te du dog julli gi ay sart nag mooy moo cee daje bu fekkee yooyu dajewu ci rek day dog julli gi dem defaru bu noppee julliwaat waaye bu fekkee daal ci tënk mi ngi bori waaye deret ji sottiwut mooy daa des ci biir rek ci bakkan bi rek dana tayit mën naa fexe ba raxas ko te du mooy xibla mu koy raxasee itam du sori lu mel ne ku doon taxaw di julli nii rek ci wetam nii rek am na fi lawa boobu ko jege ci misaal wala fu mën a raxase daal nga xam ne mën naa jëm càmmooñ tuuti rek àgg ca wala mu jëm dajoor tuuti àgg wala muy ci ginnaawam mën a jëm ginnaaw tuuti àgg ci wala muy ci kanam mën a jëm kanam tuuti àgg ci loolu lépp mooy kon wëlbatikuwut ba jublu fudul xibla te it soriwut musta dara ji toqut te itam diggante bi muy euh, randu ngir àgg fu ko defaree itam jóggiwu fi sobe yooyu yëpp daal bu ci dajee dana ko mën a defar àggale julleem bu fekkee nag munta sàmmonteeg yooyu yëpp kon day dog julli gi dem defaru defaru mooy raxas ko bu raxasee ba noppi nag tàmbaliwaat julli julliwaat julli gu mën sëkk. Hmm. jërëjëf sëriñ Seexuna bokk mi moom dafay laaj lan mooy àtteb ki nga xam ne dafa gis mànniyu ci bëccëgu weeru koor te li ko sabab mooy da doon waxtaan ak soxnaam ci ay waxtaan yoo xam ne jural na ko mu génne mànniyu ci bëccëgu weeru koor. waaw bu dee ku xamoon ci boppam ne waxtaan wu mel noona mën na ko mën na àgg foofu ci moom bu dee ku xamoon ci boppam loolu la kooku bu ko defee dañ koy jàppe ku dog te tey ko kon mooy nit ki nit ku ne xam na boppam bu xamee ne moom waxtaan wi mel noonu daawu ko jural loolu ku yàlla dogaloon mu jural ko ko itam kon dañ naan kooram yàqu na waaye nag euh, duñ ko jàppe ku ko tey mm-hmm. bu fekkee nag xamoon na ci boppam ne lool da ko daan jural lu mel noonu ba noppi mu def ko kon moo jubloo yàq kooram moo ko tey ki yàq kooram te tey ko nag du fay benn bis rek waaye day defaale kafaara itam te li ci gën a fees rek mooy kon bis benn bis bi da koy woral ñaari weer juróom benn fukki fan bu fekke xam na ne wala xamoon na ci boppam ne lii Euh, bu ko masaana def lee daana ca topp kon dañ koy jàppe ku dog kooram te tey ko bu fekkee xamutoon ne daana ca topp nag kooka dañ naan dafa dog kooram rek ndax moo wéyal waxtaan wi te loolu sabab la bopp loolu mën na caa juddoo yaa dogalee mu da te daawut a juddoo nag kon kooram day yàqu rek day fay benn bis rek lay fay waaye du du jërëjëf euh, mbokk mi moom day laaj euh, kii nga xam ne daal moom du julli mukk lu may bu weeru koor teroo maanaam moom daal du julli waxtu yu juróom lu may weeru koor dafa ñëw bu budul weeru koor moom kenn du ko gis muy julli kooku lan mooy ab atem ab atem de mooy mooy ne mooy na ci fukki weer ak benn <laughs> fukki weer ak benn mi ngi koy mooy mooy mi ngi bañ def li ko yàlla digal te muy julli wenn weer moom julli googee ñu ko digal ma ngi ko cay def waaye fukki ak benn nag ma ngi mooy yàlla ma ngi cay mooy yàlla du tee nag julli yi julli ci koor gi moom doon julli yu baax nit ki buñ ko digalee lu mën di bàyyi ca ndigal la itam lu tee lam ca def lum mu tuut tuut lu def la lu def la waaye nag bàyyi na ndigal kon bàyyi na daal lu baree bari wala bàyyi na ndigal lu yàgg yàgg yàgg yàgg am diir bu gàtt bu muy def ndigal loolu rek mooy mooy atte bi waaye du tax euh, julli gi julli ci koor gi moom du tey mu doon julli julli gu yu baax euh, julli nag day lu rëy ci lislaam lool waxuma la di ko bàyyi fukki weer ak benn waaye genn julli rek bañ koo julli day lu rëy lool lool lool gis nañu sëñ bu mag bi bi muy wax ku bañ julli la ko ca mën a fekk danañ xam ne kon julli ken waru ko sàggane euh, bañ a julli yeex a julli rek yeex a julli mooy bañ a julli ba waxtu wi jeex rek ngay door a julli loolu rek day lu rëy rëy loo xam ne yàlla wax na ne ñii def loolu euh, sawara mën na leen caa fekk waylu lil musallin alladina hum an salatihim saahuun loolu prix mi gën a euh, yenu ci prix yi loolu bokk na ci ci mooy yanu maanaa loolu ñu ne mooy ñi nga xam ne dañuy sàggane julli bay bàyyi ba waxtoo jàll ñu koy door a def nga xam def nañ ko sax waaye nag dañuy sàggan ba waxtoo jàll ñu ñàll nee na sawara da leen di jural sawara sàkkantuma nag ku ko bañ a def sàkkantuma bañ koo def ay fukki weer ak nangam loolu moom lu rëy rëy rëy la lu ku nekk war a moytu la hmm. jërëjëf euh, kii moom dafay laaj lan lay wax su fekkee ne dafa sujjóot sujjóotub alquran maanaam ci biir sujjóot bi lan lañ ciy jàng. sujjóot bi de amut luñ naan moom rek lañ ciy jàng. Mhm. moom mën nañ cee sàbbaal yàlla mën nañ ko cee ñaan. Mhm. ñaan kon lum ci def loo xam ne sàbbaal la rek muy màggal yàlla ak ñaan ko ci rek lu baax la. Mhm. amut luñ koy tënk daal amut luñ koy tënk. li ñu def ci sujjóot ci julli mën na ko cee def yokku ci leneen subhaana rabbil aala mën na ko cee wax luñ koy waxee ci julli yi bu noppee yokk ci ay ñaanam waaye amut luñ koy tënk ne ko moom rek lañ ci war a def wala moom lañ ci war a wax. Hmm. Euh, kii moom dafay laaj ndax dana dagan fas ab sëy ci bëccëgu weeru koor. Hmm, waaw fasub sëy kii ma ne ko def sëy moom amut. waxtu wuñ ko munta def wala jamono juñ juñ ko munta def weer wuñ ko munta def wala waxtu wuñ ko munta def ci bis ci bis bis yëpp lañ ko mën def weer yëpp lañ ko mën def waxtu yëpp lañ ko mën a def euh, mbokk mi dafay laaj ne lan mooy àtteb marchandise mi nga xam ne dañ koy jaay ci bu fekkee ne dafay gën a néew ci bu dat bi muy fay sore ci dat bu jege lan mooy àtte bi loolu xeetu njaayeen la am na ñooñ bu ñuy jaayee dañ naan la booy fay ci saasi li ñuy wax teew mi teew nangam lañ la koy jaayee waaye bu dee nag da koy jël ba nangam nangam lay doon borom xam-xam yi nangu nañ loolu dañ naan day mel ne marchandise mu am ñaari njëg la rek njëgu teew mi teew ak njëgu uh, lu ñuy fay ëllëg kon luñ nangu la nit sañ na ne lii dama koy jaaye kuy fay ku koy jënd ci ci teew mi teew nag daal di fay ci saasi nangam laa koy jaaye koo xam nag da koy jël ba weer wala ba nangam mu door a fay nangam laa koy jaaye te loola mooy ëpp li koy jaaye kuy fay kuy fay teew mi teew loolu luñ nangu la borom xam ne nangu lañ noonu jërëjëf kii dafay laaj eh, ndax dana dagan ci boroom kër bi muy jël dépasse bi di ko jox soxnaam wala si yaayam maanaam nga xam ne dépasse bi daal soxna am la koy jox bàyyi yaayam. Mhm, loolu mu aada rek la nag. Mm. loolu mu mbir yi aada la rek. Mm. li am solo daal mooy nit ki moom war naa dundal ak njabootam. Mm-hmm. ci aada nag soxna ñooy togg. Mm-hmm. kon lu mën a xew moom ci ñoom lay mujj <laughs> léegi nag ndax nit ki da koy jox wala da koy jox yaay mu jox ko ko mm-hmm. loolu ay moom aada rek la amut leen loo xam dañ ko ciy digal naan ko li ngay def mm-hmm. ku nekk daal moo xam na muy doxale mook ak njabootam mm-hmm. waaye li mënti xew moom ki koy togg moom dana ak moom moo xam dañ ko koy jox wala dañ koy jaarale ci yaay ja loolu moom mbir nit ñi la kenn ku demoo moo cee doxale nam cee doxaleel boppam rek waaye amut luñ ci santaan naan lii la ñuy def Euh, kii dafay laaj lan mooy àtteb xale gone su fekkee ne euh, maanaam dafa am bàkkaar maanaam bàkkaar da ko da koo dab maanaam xale bi nga xam ne xëy na majeurul lay la ciy jublu. Mm-hmm. su fekkee dafa def bàkkaar lan mooy àtteem. waaye duñ mën a wax dafa def bàkkaar. Mm-hmm. mooy xanaa dafa def lu yàlla tere. Mm-hmm. du tax mu doon bàkkaar ci moom. du tax mu doon bàkkaar ci moom. kon xale bu defee luñ tere du doon bàkkaar ci moom diggante ak yàlla kon du ko ca topp dara waaye nag diggante ak nit ñi nag mën nañ ko caa topp dara bu dee ku ràññee ku ràññee la ku xàmmee xale bu xàmmee la ak gu ci nekk muskaalaf waaye nag xàmmee na bu yàqal nit ñi loolu bu ko muskaalaf defoon bàkkaar lay doon moom doon bàkkaar waaye nag mi ngi yàqal nit ñi duñ ko bàyyi rek ne ne ne ne du muskàllaf duñ ko wax dara duñ ko def dara danañ ko mën a yar yar bu tolloog moom yar boobu suñ diggante lay doon mooy société bi kon mën na ko jubbanti waaye nag du du ci am bakar diggante ak yàlla moom waaye nag yàqal gi muy yàqal société bi dana jox société bi sañ-sañu ñu jubbanti ko jubbanti koo xam nag dana méngoo dana méngoo ak moom waaye euh, du tudd bàkkaar ndax bàkkaar moom mooy loo xam ne euh, mooy yàlla la euh, li mu def nag yàlla tere na ko waaye ci moom du tudd ak mooy yàlla ndax guñ ko digalaguñ ko yàlla tereegu ko digalagu ko mhm. waaye nag société bi mu nekk moom duñ seetaan ku ràññee xàmmee mu leen di yàqal ñu di ko bàyyi rek muy wéy di yàqal société bi danañ ko jubbanti dañ ko jubbanti Euh, suñ seex naa kii dafay laaj ne ndax dana war ki nga xam ne dafa dugg ci lislaam ci bëccëgu weeru koor ndax kooka woor dana ko war ci bëccëg ba mu dugg ci lislaam déedéet déedéet woor du ko war woor du ko war woor ki muy war mooy koo xam ne jamono ji koor di tàmbali jamono ji koor gi tàmbali mooy bi fajar di jot fekk na muy ku war a woor fekk na muy ku war a woor kooku la koor war waaye ki nga xam ne bi waxtu woowu di jot fekk ko muy ku war a woor koor waru ko bu dee ci bëccëg bi la ko looy lay door doon ku koor di war boobaa kon bis boobu bokku ci moom bokku ci bis bi ko koor di ware lu mel ne kii kii kii tuub lu mel ne jigéen ju gisoon mbaax ba ci bëccëg bi baax mi dog lu tax ñu ne ko da ngay woor bis boobu duñ ko ne sax da ngay jàpp àggale ak la ca des doo lekk doonaan sax duñ ko ko wax duñ ko wax itam kii door a dugg ci lislaam loolu duñ ko wax duñ ko wax ñooñu ndax bis boobu waru warutoon ci ñoom bi waxtu koor di jot fekkutoon ñu bokk ci ñi euh, koor war ci ñoom hmm. kon ci ëllëg sa daal lay tàmbali beneen bis ba nga xam ne moom ba fajar jee fekk na mu doon jullit te yeneen ngànt yi te nit yi te war nekkul ci moom foofu la ko war di tàmbale wara ci moom hmm. euh, kii moom dafay laaj ci ne ndax dana dagan ci maamoom bu imaam di jàng muy jàng ci ginnaaw waaw loolu dañ cee jublu xam naa bu fekkee ilimaan day jàng ci kaw jàng alquran ci kaw euh, loolu dañ ci war a jublu ndax bu dee jàng ci suuf moom ñëpp nangu nañ ne day jàng waaye bu dee jàng ci kaw nag lañuy wax boobaa lii ngër mi mooy ki topp ci ginnaaw ilimaan bu ilimaan di jàng ci kaw moom du jàng da koy déglu rek da koy déglu rek am na ngër yooyu nag dañ naan faatixa ji moom dana ko jàng waa ñooñu sax dañ naan gënut muy jàngandoo ak moom am na ñoo xam ne ilimaan bu day jàng ba daaneel maye ab diir bu gàtt ñi ci ginnaaw mën a jàng faatixa ñoom it mu door a jàll mooy ñu jàpp ne kenn ku ne moom rakk bu ne da caa a jàng faatixa moo xam daa jiite moo xam dañ ko jiite moo xam buñ ko jiite itam ki ko jiite day wax ci kaw wala day wax ci suuf waaye bu dee ngër moom ilimaan bi wax ci kaw ki topp ci ginnaaw moom du jàng du jàng da koy déglu rek boobaa kon moom du ko waaye bu ko defoon tam ku waa du yàq julleem du yàq ci ngër mi sax euh, ngër mi ne waru koo def waaye bu ko defoon tam du yàq julleem ci nag moom da daa war a jàng fàtte lu mën di xew moom itam bu ko jàngandoo woon ak moom it du gën waaye du tax mu yàqu julleem bu bàyyee bam mu daaneel nag mu jàng ko te ñanaan dañ ko war a jàng loolu mu du ci nekk waaye jàngandoo gi moom yonente bi euh, mas naa mas na mas na koo tere daal ilimaan jàng ci kaw am keneen kuy jàng mas naa di julli ba noppi moo doon xëccoog man xëccoog loolu jublu di jàng keneen di jàngaat di jàng ci kaw keneen di jàngandoo ak moom kon bu dee ngir mi daal moom bu ilimaan di jàng ci kaw moom ki topp ci ginnaawam moom du jàng du jàng. Hmm. Euh, jërëjëf euh, mbokk mi moom dafay laaj lan mooy maanaam maandu ci diggante waajur ak doom maandu. na nu waajur di maandoo ci ay doomam. ci ay doomam. Hmm, nu waajur di maandoo ci ay doomam. maandu day mën nañ ko wax ci ay doom wala ci ay soxna wala ci ñu sax ñooñu mooy kilifa rek ca ñam yilif kilifa gu nekk rek ñam yilif war naa maandu war naa maandu diggante ci seen diggante mooy kenn ku ci nekk euh, lay àqam na cay jot kem kàttanam kem man-manam daal kenn ku ne lay àqam ci moom na ko nako ko na ko na cay jot buum di e, taxaw ci am ci kook dana taxaw ci li ko war ci moom am ci kook du taxaw ci li ko war ci moom mooy gënale gënale mooy lool waaye maandu firiwut yamale tolloole di tollale firiwut tollale waaye kenn ku ne rek lam aajowoo tam man ko nag koy defal lam aajowoo tam man ko ta war ko ta war ko koo defal nag koy defal bu ko defee rek maanu na bu fekkee nag am na ci kook dana aajowoo dara mu man ko tam war ko te du ko defal te keneen ka nag mu koy defal boobaa maandu amut loolu kon dëgg-dëgg mooy bu dee ci diggante mooy maandu bu dee diggante ay soxna itam mooy maandu bu dee diggante keneen ku ñi ku yilif ñeneen ñu mën di doon ku yilif ab dëkk ku yilif am réew moom it ña seq réew ma ñu dëkk ci réew ma wala ñu dëkk ci dëkk ba itam kenn ku nekk lay àqam tam war ko moom tam man ko na cee taxaw bu amee ku muy ku defal lool te du ko defal keneen rek ñàkk maandu am na. Hmm. jërëjëf xam naa ne laaj bi mooy suñu laaj bu mujj ndax waxtu ñu ngi jeex kii dafay laaj ne ci ban loxo walla ci ban baaraam moo gën nit ki di ci takk ab jaaro bu dee ban baaraam moom mm, dañuy tuddee baaraamu sànq lañ baaraam bu ndaw bii bu bu bu bi gën a tuuti moom moo gën yonent bi lañ nettali mooy ci la daan takk jaaroom ban loxo nag moom wuute am na ci wuute am na ci nettali yu dañ cee wuute kon fi ñu mu daal daanaka mooy na loxo bu ci doon baax na waaye daal bu sànq lañ moom moo gën bu sànq moo gën moo gën am na ñaar yooyu moom yonent bi da koo tere moom muy ñaar yi li ñuy wax dëy ak baaraamu sànnikaay ñaar yooyu moom da ko dafa tere ñu takk ci jaaro kon bu baaraam sànq lañ moo gën yeneen ñaar yi topp ci yeneen ñaar yi ci sës ci baaraamu déy bi ak bi ci sës nag moom dafa doon tere ñu ñu di ko def ndeyjoor ak càmmooñ nag lu ci ne ay nettal la ciy ñëw ba tax na liñ mu jàpp rek mooy ne kon mu ci def baax na bu mu ko ci takk rek baax na ñu bari nag dañ ne ba tey càmmooñ bi moo gën takk ko càmmooñ kon def ko ci baaraam sànq lañ tamit càmmooñ daal dañuy wax ne moo gën jërëjëf euh, mu mel ne waxtu wi ñu cërale woon jeex na kon ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw xanaa di sant ñeen doon topp ñëpp rek te neen ko waxee tam rek lu ci jub nu ñaan yàlla defal nu jàppandal ba man koo jariñoo lu ci doon juumte itam nu ñaan ko mu jéggal nu ko mm, di jéggul ñëpp itam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud jërëjëf tamit mbokk yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ci seen seen GMT TV ci seen émission bu am solo bi nga xam ne mooy émission gàggantiku dañ leen koy indil ci weer wu nekk ñaari yoon muy le 9 ak le 23 incha allah rabbi ñu ngi leen di jox ñu ngi leen di dig daje kon ci seen beneen émission gàggantiku euh, ñu dalalaat sunu beneen borom xam-xam kon